اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kon ñu ñëw ci sunu jataayu ñaareel ci bind yi nga xam ne tàmbali nañ ko waaye balañ cee sori ñi teewe woon bind bu jëkk bi dañoo soxla kenn koo xam ne ku jàpp ne takk na ñetti bànqaas yi ñu waxoon ne tawxiid am na ko mu gàttalal ñu ko ci loo xam ne ci diggante benn minute ak ñaari minute rekk lay yem du ko ëpp ndax ku mel noonu am na walla su dul loolu ma laaj benn par benn dañoo fekkiwul darsu bu njëkk ba walla dañoo wóoluwut seen bopp ah ah yaakaar naa ko de kon ñu déglu sëñ bi mu gàttalal ñu ko su amoon microphone bu ñu ko jox nag dana baax ala kulli xaal yett yi noonu ñu ko waxee noonu la demee bu njëkk bi mooy ki bind te moom maanaam ki bind lépp te moom lépp loolu nga war koo fas gëm ko nangul ko yàlla ñaareel bi mooy ki bind te moom kat kon moom moo yeyoo ñu jaama ko moom dong te bañ ko bokkaale kenn ñetteel ba mooy nga nangul ko ay turam yu rafet ak melokaanam yu rafet te turam yooyu ak melokaanam seen maanaa yi di feeñ ci say jëf ak ci say melokaan bu la wóoree ne xam na lépp foo làqu fu mu mën a doon da nga gëm ne kon moom xam na li ngay def bu la wóoree ne day gis lépp foo làqu fu ne xam nga mi ngi lay gis bu la wóoree ne dégg na lépp foo làqu di wax it xam nga ne la ngay wax mi ngi koy dégg su ko defee loolu am na lu muy jur ci sa suloog muy sa jikko ndax nëbbu fi béréb du tax nga def loo xam ne ump na nit ña rekk loola du doy ndax am na keneen koo xam ne ump ko muy sa borom loolu nag day saawaan ba àgg ci lépp loo xam ne nit ki yor na ko ci niñ ko waxe woon ci jotaay bi weesu yemul ci ka wéet fi béréb dong waaye liñ la dénk sax nga jekku ko te xam ne nit mënula caa contrôler da nga xam ne loolu yàlla mën na la caa contrôler muy responsabilité bu mu mën a doon nag moo xam alal la moo xam dénkaan moo xam lu mu mën a doon ci àdduna kon loolu mooy ñetti tawxiid yi nga xam ne wala ñetti bànqaasi tawxiid sax ni ñetti tawxiid amul waaye ñetti bànqaasi tawxiid yi nga xam ne ñooy composé garab gu mag gi nga xam ne mooy garabu tawxiid mu des beneen tomb boo xam ne mooy mottali loolu ndax lii nu wax lépp dafa aju ci xaqi sunu borom tabaraka wa taala waaye ngir tawxiid mën a mat faaw nga xam itam leneen lu bokkut ak loolu ngir sa imaan mën a mat dafa am leneen lu aju ci loolu loo xam ne faaw nga xam ko ndax xam nga ne kii dugg ci lislaam dañ koy wax ne ko waxal ashhadu an laa ilaha illa allah su ko waxee ba àggal ñu ne ko waxal ashhadu anna muhammadan rasulullah kon pàqub ñaareel bi ci shahadatayni muy ñaari seede yi pàqu ñaareel bi mooy seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawul yàlla loolu danañ ci ñëw waaye dañ koy dugal feneen fu bokkul ak ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu moo tax ni ñuy tàmbalee tey mooy ñu xam ne li ñu jàngoon ci bind bu njëkk bi li ñu jàngoon ci bind bu njëkk bi lépp day dugg ci ponk bu njëkk bi ci arkaanul imaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jibril da ko laaj lan mooy imaan mu limal ko juróom benn yëf ne ko lii ku ko gëm sa imaan mat na juróom benn yëf juróom benn yëf yooyu nag moom la waroom xam-xame di tudde arkaanul imaan muy ponki ngëm foofu bul ne ponki ngëm yàlla waaye ponki ngëm gu wér ba ca jëkk mooy al imaanu billah gëm yàlla naka lay amee mooy li ñu doon wax ci jotaay bi weesu faaw nga am tawxiid ju la musal ci bokkaale faaw nga am tawxiid ju la musal ci bokkaale kooku mooy al imaanu billah mooy ponk bu jëkk bi ci ponki gëm ngëm gu wér kon gëm yàlla mooy ponk bu jëkk bi ñaareel ba mu ne ko ak i malaayikaam gannaaw boo gëmee yàlla nga gëm ay malaayikaam ay malaayika ay mbindeef lañ yoo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala moo leen bind ci coobareem ak ci xarañteefam am lum namm ci ñoom moom dong nit moo xam nu ñu toll moom rekk moo xam malaayika yim bind nu ñu toll doy na sëkk nga xam ne sax na ci xadiis ni kaaba gi nekk màkka jullit ya di ko wër am na geneen kaaba gu ne ci asamaan sa gën a kawe ñi koy wax albaytul maamuur ay malaayika di ko wër moom itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bis bu ne sabuuna alfu malak soixante-dix mille ci ay malaayika danañ ko wër ci bis te mépp malaaka mu ko wër du fa delsiwaat kañ lañ bindoon baytul maamuur allahu aalam kenn xamul kañ lañ ko bindoon kaaba gi daal xam nañ ne moom histoire am léegi la ñuy delloo ko ca sunu maam ibrahim te loolu mooy lu gën a wér loolu nag ay junni at ay nangami junni at la booba ak léegi waaye baytul maamuur laa shakk ne moo gën a yàgg kon doy na sëkk nga xam ne ñooñu nga xam ne tawaaf dong la ñuy def ca baytul maamuur noonu lañ bare doy na it nga xam ne malaayika yooyu sunu borom tabaaraka wa taala bi mu leen bindee daf leen a jox ay fonction yoo xam ne moom la ñuy liggéeyee am na ci ñoo xam ne wala malaaka moo xam ne moom la dénk luy lu ñuy wax ngelaw lépp lu ci aju moo ko yor am malaayika muñ dénk ndox mi lépp lu aju ci ndox moo ko yore am malaayika muñ dénk ruuxi doomu aadama yi moo koy jëlsi wala ruuxug lépp luy faatu am malaaka moo xam ne moom lañ dénk montagne yi ak it nag ay malaayika yu dul jeex yoo xam ne ku yàlla bind ku nekk nga nekk mu kàllaf am na yaari malaaka yu ànd ak yow yoo xam ne menn maa ngi ci sa wetuk ndeyjoor mi ci des nekk ci sa wetuk càmmooñ ñi topp ci yow loo def ci lu baax kenn ki bind ko loo def ci safaan ba ka ca des bind ko kon doomu aadama yi mas a juddu nu ñu toll nu ne xamal ne malaayka yi nga xam ne seen fonction mooy loolu dong waxuma yi ca des ñooñu ñaar ca nañ leen ndax ku ci ne am nga ci yaar ñu doon it nag bindeef yoo xam ne yàlla doo nga xam nu mu leen binde ak lam leen jox ci ay kàttan ak lam leen jox ci kàttan sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam doy na sëkk nga xam ne malaayika miy jël ruuxi doomu aadama yi ku faatu ku ne mooy jël sa ruux ñaata nit ay faatu bis bu set ca penku ak ci sow ak ca ndeyjoor ak ci càmmoñ ak fu nekk ci benn seconde bi téeméeri nit mën nañoo faatoondoo ñoo xam ne ñenn ñaa nga Amérique ñii nekk France ñii nekk Arabie Saoudite ñii nekk feneen ñii nekk Sénégal ci seconde bi menn malaaka mooy jël seenu groupe ñoom ñëpp kon seeni kàttan yàlla rek moo ko xam seeni tolluwaay it sunu borom tabaraka wa taala rek ko xam moo tax malaaka mi nga xam ne moom la yàlla daan joxoon fonction mu nekk tuxal waxyu nga xam ne lii fonction muy liggéeyam ak yonent yi moom la koy jox mu indi jox leen kooku muy jibril muy malaaka mu tedd boo xam ne suñ borom tabaraka wa taala tudde na ko ay tur yu bari bokk na ci al amin bokk na ci tudde ko ruux tur yu bari jox na ko muy jibrail bu daan ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir yërmaande suñ borom tabaraka wa taala melokaanu nit lay indi xam nga ne xadiisu jibril bu siiw boobu yi nga xam ne ponki imaan yi ma lay wax ca lañ ko jële ba muy ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa agsi ak yére yu weex tàll ak kawar gu rafet ba Omar ibn al-Khattab mi ko doon nettali xadiis bi sax nee na nun danoo xaw a waaru ndax nun xamuñu ko ba noppi gisuñu ci moom màndargam kuy tukki ndax kuy tukki wax dëgg yàlla agsi dëkk boo xam ne kenn xamula fa boo dikkee war ngaa yor coonob kuy tukki sa yére war naa tilim wala sa kawar fagg wala ñu xool say bagage gis la xam ne kii ku sonn la waaye ku jékki-jékki rek ne jalañ salaamaaleykum daal di ñëw toog sukk ñu xool gis sa yére weex tàll sa kawar ñuul kukk giseesul pochette giseesul dara nga tàmbali laaj yonent ba muy tontu loolu jaaxaloon na leen waaye dikkiin woowu lay wax ne dikkiinu yërmande la benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj jibril ne ko ndax mënees naa xam wala gis melokaan wi nga xam ne ci la la sa borom bind dëgg dëgg nag nga xam ne loolu mooy sa melokaan ci riwaaye xadis ba nee na mu tàllal menn laaf mu daldi muur jant baag lépp loo xam ne dafa féete kaw doomu aadama yi ci asamaan ci menn laafam mu daal di koy delloowaat mu mel na meloon mu xam ne kon ku gis melokaan wa dëgg-dëgg dana yéeme wala xëju fi xëju fi kon yërmaande sunu borom tabaraka wa taala loolu ay lumière yu néew a néew la ci malaayika yi sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne da leen a bind ñu nekk ci àdduna ca kaw ak ci suuf ak kenn ku ci nekk fa ko soob mu nekk fa ñi dund nekk seenu monde nii nu nekkee ci sunu monde boo xam ne mooy aalamul ins muy monde doomu aadama nit ki war leen a bàyyi xel war leen a gëm gëm googi war a am jeexit sax ci ak dundam ndax bu la wóoree ne am na ñaar ñoo xam ne yàlla da leen a bind nga xam ne li ñuy wut si képp mooy yow mu kàllaf bind li ngay jëf te it mënoo def lu ñu xamul kiraaman kaatibiina yaalamuuna maa tafaaluun lépp lu ngeen def dañ koy xam loolu dana la soññ ba la ngay def da nga koy xool mu baax la ngay wax nga xool ko mu baax maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid loo wax lu nekk ñoom ñooñi ñi ngi koy bind kon ñooñu faw doomu aadama ji bàyyi leen xel ci suluukam mu ci feeñ dana rus lool ci seen kanam di wax loo xam ne suñ ko bindee ëllëg dana ko toroxal wala mu koy jëf kon doomu aadama ji gëm gi muy gëm malaayika yooyu am na jeexit woo xam ne war na koo feeñal ci ak dundam loolu lu néew la ci luñ mën a wax ci buntu malaayka yi yàlla tudd na ci yu bari ay tur ak yu mel noonu kon kooku mooy ñaareelu ponk gëm ñetteel ba bi mu ne billaahi wa malaaykati daf ne wa kutubihi ak téeréem ya faaw nga gëm ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala yebal na ay yonent wàcce ci ñoom ay téere yonent yooyu nag bari nañ lool téere yooyu it bari nañ lool amut benn yonent boo xam ne yàlla mas na ko yebal ci aw nit te du daa wàcce ci moom ab téere téere yooyee nag jullit bi dafa war a gëmaale ne bi fi des te mucc ci yokk wala wàññi benn rekk la muy téere bi ci gën gën cee mat muy alquranul karim alquran mooy téere boo xam ne waxi sunu borom tabaraka wa taala la aw xaraf nekku ci woo xam ne doomu aadamaa ko wax loolu nag lu rëy a rëy la waxuñu waxi ab yonent wala waxi malaaka waaye waxi koo kii nga xam ne moo bind ñépp te moom ñépp loolooy ay waxam moo tax alxuraan màggaay ba dem dayo boo gisee ñu ne la boo ci jàngee aw xaraf am nga fukki tuyaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waxuma leen nga ne alif laam miim de waaye dama ne la alif aw xaraf la boo ko waxee am nga fukki tuyaaba laam boo ko waxee am nga fukki tuyaaba miim boo ko waxee fukki tuyaaba am nga ko muy ñaata fanweer kon alif laam miim rek am nga fanweeri tuyaaba yow mii jàng alquran kon kooku bu dee ci wàllu tuyaaba màggaay ba dem na dayo mu wëlbati ku nekk jenn wax joo xam ne moom dong kepp kese lëb jullit mën a taxawal di ko jàng nit ñi di dégg alquranul karim rek moo jagoo loolu waaye saa boo taxawaloon allahu akbar nit ñi ne ca sa gannaaw nga tàmbalee di jàng leneen boo wëttuwul boo sëlmalee doo fekk kenn ci sa gannaaw ñépp danañ dem wàcc la fa xam ne julliwoo moo tax xewti yi lenn ci ay doomu aadama di xewal ci yenn ci réew yi nga xam ne sax xëy na ñoom jubluwuñoo jàng leneen lu dul alxuraan waaye dañ ko jubloo firi ci yeneen i làkk bëgg a taxawal julli ba àggal di làkk alxuraan ja ci weneen làkk tàmbalee ko ci faatiha loolu amul benn jullit wala benn boroom xam-xam boo xam ne nangu na ko ci ñooñu teyit képp kuy gëstu ci xam-xam xam nga ne loolu julli gu baaxut la maanaam saa boo taxawalee sa julli jàpp ne alxuraanul karim moom mi mën nga ko firi ci weneenu làkk taxaw di ko jàng su boobaa jàngoo alxuraan ndax li wér te wér mooy xaraf yi nga xam ne moom la yàlla wax ak ni mu ko toftalee mënee su koo indi ci weneen làkk moo tax traduction yi ñuy jëfandikoo yépp dañuy wax ne tarjamatu maanil quraan maanaam dañuy traduire sens bi nga xam ne moom la alxuraan am waaye jëmmi xaraf yeeg toggale gaa na ko sunu borom tabaraka wa taala waxe kenn mënu koo firee noonu ci weneen làkk wu dul woowa moo tax ki taxaw di jéem a jàng faatee wax ju doye dee doye di lay wax ak làkk wu mën a doon ginnaaw xas na ko génne ci ni ko yàlla tere woon salaaw boo déggoon wolof ba gën a dégg nit ñi wolof wala nga dégg polaar ba gën koo dégg doomu aadama yi wala français wala anglais nga ne tànn naa nag ba traduire sama traduction boo xam ne mooy bi gën a xóot ci traduction yi taxawal daal di tàmbali di wax faate yi ca làkk woowee ku la dégg boobu dana la reetaan su xamee làkk ndax la ngay wax lu doye dee doye di lay doon bokkut ak la sun borom tabaraka wa taala waxoon kon kooku mooy alquranul karim waxi sunu borom tabaraka wa taala bokk na ca màggaay ba nga xam ne alquran moomu melokaanu sunu borom tabaraka wa taala la ndax dañuy wax ne wax ju ne melokaanu boroom la wax ju nekk melokaanu boroom la loolu nag lu am solo la lu mat a xam la te dafa am lu muy jur ci wàllu pas-pas yow mi xam sa yow mi nga xam ne diw sàngam xam na sa baat bu wér a wér boo taxawoon fi ne allahu akbar ki ko dégg dana ah kooku day diw sàngam la allahu akbar jooju keneen mën na ko wax léegi ñu ne kooku diwa toog fa li kon ca kër ga dégg ñiy noddu ki yëkkati kàddoom noddu nga ne ah kooku day Lamin Jaata keneen noddu nga ne ah kooku day Muaas Kala keneen nodd nga ne ah kooku de Sadio la te moo ne ñoo bokk li ñuy wax de lu tax parce que kenn ku ne say wax daa doon sa melokaan sa wax dafa doon sa melokaan loolu moo tax alquranul karim melokaanu sunu borom tabaraka wa taala la yow mi taxaw di jàng alxuraan ci kanam nit ñi kàddu gi ñuy dégg sa kàddu la waaye la ngay wax nag loolu waxi sunu borom tabaraka wa taala lu mat a xàmmee la li ngay wax yow ci sa làmmiñ ñi di ko dégg ndax ni ngay jànge ku ko dégg xam ne kii diw la bu keneen jàngaatee alxuraan ku ko dégg ne kooku diw la keneen jàngaat alxuraan ñi dégg ko ne kooku diw la kon wax ji kon léegi yow li ñuy dégg ci làmmiñ wi muy son bi ngay dégg kooka diwa waaye la diw di wax nag loolu waxi sunu borom tabaraka wa taala moo tax kenn wutewu ko ak sa morom ki jàng faatiha ba àggal keneen ki jàngaat faatiha liñ doon jàng lenn lee waaye nañ ko doon jàngee nag du nen na ni loolu moo tax kenn ku ci ne dangaa yor sa melokaanu bopp woo xam ne day feeñ ca wax ja sunu borom tabaraka wa taala nag mooy koo xam ne jëmmi alquran ci boppam dafa feeñ ci ay melokaanam moom sunu borom tabaraka wa taala loolu moo tax mu dagan mu dagan ñi jëflanteeg alquran noo xam ne diisu ko jëflante ak mbindeef lu tax ndax dafa nekk melokaan yàlla boo doon waat ne wal quraanil karim kooku ak waat la goo xam ne waroom xam-xam yépp danañ ko nangu waaye nag bul ne wal kitaabi ndax téere ba la muy firi mooy feggu ya ak këyit ya ca biir ak mbind ma ca biir loolu mooy téere waaye nag alquran moom mooy waxi sunu borom tabaraka wa taala moo tax booy waat ci alquran nga mën a waat waaye waru mënoo waat ci téere ba ndax alkitaab du melokaanu sunu borom tabaraka wa taala waaye la ca biir kitaab ba loolu mooy melokaanu sunu borom tabaraka wa taala moo tax kay waat la ne ca biir ca loola la mën a waat audu bi kalimaati llahi taammaati min sharri ma xalaq kooku yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko jàngal maa ngi muslu ci kàddu yàlla ci ayu lépp loo xam ne lu mu bind la kàddu yi yàlla mooy waxi yàlla loolu mooy lan moo di kàddu yi yàlla kon du mbindeef ndax xam nañ ne istiaada ak jaamu la maanaam muslu ak jaamu la moo tax awudu foo ko waxee rek billaahi nga mën a wax munoo muslu ci keneen ku dul ci yàlla ndax ak jaamu yàlla la kon boo bu dagganee nga wax ne audu bi kalimaatillaahi la muy firi mooy kalimaatullaahi nekkul mbindeef ndax mbindeef kat munta dagan ñi di ko jaamu loolu mooy li gën a wér ci li lay wan ne alxuraan nekkul mbindeef waaye melokaanu sunu borom tabaraka wa taala la loolu yi lu mat a xam la mu wóor la it ne mooy téere bi nga xam ne li tax mu gën a màgg dafa nekk téere boo xam ne lépp lu doom aadama soxla ci ak dundam ci ak dundam mi ngi ci biir téere boobu ndax suñ borom mi bind nit ñi xam seenu dund liñ soxla ci loo xam ne day defar seeni xol bañ mën a doon xol yu mucc defar seeni ruux ba ruux yooyu mucc mu defar seen dunduk àdduna ba lépp baax seen koom-koom ak ak fu koom-koom ba mën a jëm ak atte yu sew sewaan yi nekk ci biir yépp alxuraan indi na ko lu aju ci seen wàllu jëflante ci seen biir ak jikko ya ak jëflante diggante kër ak kër ak jëflante diggante réew ak réew sax lépp alxuraan bàyyi ju ci dara diggante nañ leen di àttee ku def lu tuuti ban àtte lañ koy def ku def lii lan lañ koy def ba ci ku roy ba kan yooyu yëpp alxuraan bàyyiwu ci dara kon li doomu aadama aajowoo ci ak dundam dafa nekk ci biir alxuraanul karim ba mu mat sëkk seenug texe fii ci àdduna it nekk ci borom bi won nu ne seenug texe di mi ngi ci won ko gannaaw texe di gi yemul ci texe rek ëllëg waaye même fii jàmm du ngeen ko am du ngeen am dalu xel du ngeen am dalu xol seen dunduk àdduna du mën a neex su fekkee da ngeen woon alquranul karim gannaaw wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka la sun borom tabaraka wa taala wax loolu fii ci àdduna la képp koo xam ne won na gannaaw alquranul karim borom bi tabaraka wa taala nee na dund bu ñagas ngay dund dund bu wow koŋ ngay dund loolu moom su fekkoon ne dund gu neex lay tax nit mën koo dund mooy avancé ci wàllu xam-xam ak gëstoo ak technologie yu nuroog yooyu kon dañ naan jamono ji moom ñoo war a dàq ak dund ñu fi mas a jaar ñu ne ndax fi ñu àgg ci wàllu xam-xam ak gëstu kenn mosu faa àgg waaye ñooy ñi gën a texee di ci ñu weesu ñëpp nag boo leen seetee seenu dund moo gën a wow moo gën a jafe doy na sëkk nga xam ne li ñuy liggéey ci luy faagaagal doomu aadama la rek kenn xamul nu mu toll di ko jaayante ci seen biir di ca faagaagal doomu aadama yi te su fekkoon ne mbir ya dafa tëdde na mu war a tëdde doomu aadama yi ay ngànnaay sax dañ ko dul aajowoo ndax nit ñu mokk la ñuy doon fa seen kanam borom ba kenn du jalgati kenn du tooñ kenn ci suufam di su ko tooñ ci alalam di su ko tooñ ci deram di su ko tooñ ci leen ñëpp dañuy àndandoo maandu jaar ci siraatul mustaqim su boobaa duñ aajowoo ay ngànnaay yoo xam ne dañ ciy xuppante ak di ci faagaagalante dañuy dem ba ay kaso sax duñ ko aajowoo ndax kenn duutu def lu la yóbbu kaso loolu mooy li nga xam ne moom la alquran indil jullit yi kon téere boobu bu ñu lay wax ne al iman bil kutub muy gëm téere yi sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne téere boobu yi nga xam ne moo doon téere yi fi ma soon a jaar yépp la ca baaxoon lépp te dëppoo ak jamono ji mu jël ko dugal ko ci biir alquran dolliwaat ca leneen loo xam ne amul woon ca téere yooyee ba noppi chargé ko ba mu fees dell ak li nga xam ne moom la doomu aadama di aajowoo ba keru àdduna di tukki kon kooku mooy téere bu mat bi sëkk nga xam ne moo nekk ci sunuy loxo tey ñi di ko jàng ak di ko jàngalente te aajo woon ak jëfe ko kon al imaanu bil kutub loolu lay firi ñetteelu ponk bi la ca tegu mooy gëm yonent yi yonent yàlla yi nga xam ne ñoom la yónni wàcce ci ñoom téere yooyu ku ci nekk nga nangu ne ab yonent la yonent ya yàlla wax ne yonent la nga xam seeni tur nga nangu ne ñooñu ay yonent lañ defe naa ne ñaar fukki yonent ak juróom tudd nañ leen ci alquranul karim am nag yeneen yonent yoo xam ne alquran tudd leen waaye sunna tudd na leen am yeneen yonent yoo xam ne alquran tudd leen sunna tudd leen waaye yàlla wax nanu ne am nañ ndax ne waxu ko yonent bi ci boppam wa minhum man lam naqsus aleyk am na ci ñoom ñoo xam ne yow tudduma waxuma la seen mbir am na ci yonent yi ñoo xam ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma la seen mbir kon xamu leen waaye xam na ne am na kon yow jullit bi da nga gëm ne yonent bu yàlla ma sa yónni daal man gëm naa ne ab yonent la waaye faaw nga tënk ko nag du ko tëb ku ne ne ab yonent laa rek nga ne dama lay gëm maanaam da nga koy tënk ci ne yonent bu yàlla ma sa yónni gëm naa ne ab yonent la ñeñ ca tudd seeni tur nga ne gëm naa leen nangoo gëm ibrahima nangoo gëm ismaila nangoo gëm isxaq nangoo gëm yusufa nangoo gëm ba ca muusa ak isa ba agsi ci ki nga xam ne mooy ko ca mujj nag te doon seenub sang muy muhammad ibn abdillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu moo indi lépp loo xam ne yonent yu jëkk ya doon nañ ko woote ci tawxiid mu dikk mottali ko ba mu mat sëkk indaale sharia boo xam ne dafa làmboo lépp dikk yor melokaan woo xam ne jikko yu mat sëkk léppam mat te dara lu jëm ci ak mànki jegewu ko fenn aleyhi salaatu wassalaam yonent boobu yi da nga koy gëm bëgg ko nangul ko topp ko yooyu ngay boole lislaam dafa doon diine joo xam ne diine ju large la dafa yaatu dafa nangu moo tax boo déggee ñiy wax naan ay dialogue diggante nangam ak nangam lislaam ak christianisme ak yu mel noonu yow mi xam sharia ni mu tëddee da nga naan loolu ay wax la yoo xam ne nit ñee koy wax waaye ak ñàkk dégg diine la ndax suñuy dialogue ci lan la ñuy dialogue yow man gëm naa sama yonent muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow juif bi gëm naa yonent bi nga wax ne mooy sa yonent muy Muusa alayhi salaam yow nasaraan bi gëm naa sa yonent bi nga xam ne mooy Isa alayhi salaam yow nga weddi man sama yonent bi alxuraan ji ma gëm nga ne jooju alxuraan jógewut ci yàlla suñu jalo ko fu ñuy tàmbalee xanaa ci woola nga gëm li ma gëm ci yow ba noppi man sa téere gëm naa ko ak sa yonent waaw gëmal sama téere sama yonent su ko defee nag ñu waxtaan waaye feneen beneen palaan nag bu ñuy waxtaanee boobu amul ndax seqi naa jéego bu mag jëm ci yow yow nga taxaw fi nga taxaw bis boo seqee jéego bi jëm si ci man nag te toll noo nii su boobaa dialogue bi mën naa am te mën naa yaatu kon foofu lislaam foofu la nekk nangul na ñëpp seenug yonent ñi nga xam ne yàlla moo leen yónni nangu na ne wàcce woon na ci ñoom it ay téere yoo xam ne téere yu doon gindi doomu aadama yi ca seen jamono la kon diggante bi luy indi ay xuloo ak i werante waru fee nekk su fekkee nag da ngeen a jàpp ci seen diine nu jàpp ci seen diine loolee lu baax la dara nekku ca lakum diinukum walee diin moo fay am waaye nag benn le diine yi moom moo munta nekk loolu munta nekk li ñuy wax tawxiidul adiyaan munta nekk te fii mu nekk am na ay kuréel yu jóg ci àdduna yoo xam ne ñi ngi yëngu ci loolu te it am na ñu ca nekk ñoo xam ne ci suñ mbokki naar yi lañ bokk ca penku ña ngay taxaw ci loolu bëgg a génne lu yees loo xam ne al ibrahimiya lañ koy tudde muy diine ju bees joo xam ne day làmboo diine yahut ak nasaraan ak lislaam loola suñ ko jéemeet mënta sotti bu yàggul rek am na teesu doctorat boo xam ne ka ko ka ko ka ko bind ci loola la ko bind ba def suutanaasam ba génn ñu jàppe ko boroom xam-xam ci fànn gu ñuy tudde al ibrahimiya nga xam ne mooy diine ibrahima loolu njuumte gënu koo rëy teeg bis bu ne ngay jàng qul yaa ayuha alkaafiruun laa abudu ma taabuduun wala antum aabiduuna ma abud wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduuna ma abud lakum diinukum wala diin da ngeen am seen diine ma am sama diine kon mbir ma noonu la demee alxuraanul karim nag mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yow jullit bi ko gëm te nangul ko il faut nga xam ne bokk na ci sa pas-pas sa imaan boo gisee bi may tàmbali ma ne la bi noppee ci tawxiid ji amoon ci jataay bi la jàll la ca waroon a tegu mooy ashadu anna muhammadan rasulullah ji waaye li tax ma ne la dama la koy yeexe mooy bu ñëwee ba ci al imaanu bi rusul moom yonent boobu moom lañ bëgg a taxaw ci moom foofa yonent boobu ngir sa gëm yàlla mat sa tawxiid mat du doy nga ne ashadu an laa ilaha illa allah daa dina wéetal naa yàlla ci xeeti wéetal yépp waaye boolewuma ko ci nag moom déedéet sa ngëm du dem comme ni nga xamee ne munoo jóg taxaw ne damay jël alquran bàyyi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munoo taxaw it ne damay gëm yàlla te gëmuma yonent bi alayhi salaatu wa salaam il faut nga gëm ko moom itam ndax ci la yëf yooyu mate moo tax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaar yooyu mooy ànd mu nekk kalimatu tawxid bi mat lan la ashhadu anna muhammadan rasulullah di firi maanaam nangu gi nga nangu ne moom ab yonent la ay ponk la ba ci jëkk taatuhu fi ma amar wala la jiitu mooy tasdiquhu fi ma axbar tasdiquhu fi ma axbar lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xabaare nanu ko yëpp xabaar bu mu ñu indil ne lii nangam ak nangam ak nangam la mu wóor na ci moom la jóge loolu dañ koy gëm yow jullit bi loola da nga koo war a gëm te doo ca am sikki sàkk riwaaye nañ ko ñu nettali ko jëlee nañ ko ci diw mu jëlee ko ci diw ba mu jëlee ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi nee na def leen nangam loolee yow jullit bi xam riwaaya mooy lan ndigal loolee jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmee woo ko ak ndigal li nekk ci alquran jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ndax lépp fa yàlla la jóge yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu santaane yàlla moo ko ko sant mu santaane ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa du wax ay neen lu mu wax lu ne wax yu la maanaam yàlla moo ko koy sant mu wax ko kon topp ko ci ay ndigalam mooy la jiitu ki ngay topp ci ay ndigalam nag la ca war a tegu maanaam ki ngay dëggal ci ay xabaaram nag dëggal ay xabaaram la ca tegu mooy taatuhu fi ma amar bépp xabaar bu mu indi gannaaw boo ko gëmee lépp lu mu digle da nga koy def soo ko manee nee na lépp lu ma leen digal def leen la ngeen ca man waaye lu ma leen tere na ngeen ko bàyyi ndax ndigal yi kenn mënta def lépp waaye na mën ngaa def ba fa sa kàttan yem yow mën ngaa def ba fa sa kàttan yem jullit bi bu defee ba fa kàttanam yam jaanam wàcc na waaye néewu ko li nekk néewuñ ko li nekk ci lislaam lépp kat def ko ndax yàlla dafa am yërmaande ci bindee fi laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha suñ xëyoon ne ku dib jullit faaw nga génne asaka loolu problème la maanaam ku amul alal mënoo génne asaka su ne woon ñëpp nañ dem màkk aji par force te bàyyiwuñ kenn kon moo doon jafe-jafe waaye ku man lañ wax ki nga xam ne daal man na lii na def li yunfiq du saatin min saati wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma ataahu llah kenn ku ne na la yàlla joxe joxeel noona ki yàlla xatal sa wërsëg joxeel lu tolloog lam la jox kon kat joxe moom kenn mucc ci mucc ci maanaam ki nga xam ne moom it dañ koo jox jox bu néew moom it na joxe joxe bu néew noonu la mbir ma tëdde kon ñu xam ne gannaaw buñ ko dëggalee ci ay xabaaram la ca tegu mooy topp ko ci ndigalam wal intihaa wa amma naha anhu wa zajar lépp loo xam ne tere na ko ñu bàyyi ko kon ñetti ponk yooyu mooy sa gëm yonent bi foofu lay feeñe lim digle nga def maanaam lim lim indi ci xabaar nga gëm lim digle nga def lam tere nga bàyyi loolu nag moo tax ñu xam ne bépp boroom xam-xam buy gëstu ci lislaam walla ngay bind walla ngay woote walla ngay jàngale ca la weesu ak ci lii ñu toll ak lay ñëw ca kanam su fekkee ne waroomi xam-xam la ñuy jaar ci siraatul mustaqim la yonent ba nekkoon dong la ñuy jéem a xam ñoom ñépp téere yi nga gis mu bari lool du jeex ñii di tafsir quraan ñii di jàngale xadiis ñii di ko firi ñenn ñi de xam-xam bu dul jeex fiq baag lépp boo ko boolee boroom xam-xam yooyu lañ doon jéem mooy jéem a xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy xabaar yim ñu joxoon ban mën koo gëm lan mooy ndigal yim ñu joxoon ban mën koo jëfe lan mooy tere yim ñu tere woon bañ mën koo bàyyi kese bu jeexee loolu mooy diine ji ñoom ñëpp ci loolu lañ nekkoon loolu moo tax tomb bi war a tegu ci gannaaw boo gëmee yonent boobu yi jullit yi léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ay gàllankoor a koy waral léeg-léeg gàllankoor yooyu bokk na ci ay aada ak i cosaan léeg-léeg nit ki dana tàmm ci ay aada ak i cosaan ak yoo xam ne da koo dund sax ci diine ba mujj day mujj soppiku aada nga xam ne day jàpp ne nii la parce que maam ak baay daal lii lañ doon dund te ñoom mosuñu ci soppilut loolu ne tarfatul ayn waaw li maam ak baay doon dund su demee ba mu yàgg ñu gis ne ab tomb ngi ci boo xam ne jooyoo naag tomb bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon foofu lan mooy sa taxawaay nag foofu la ngëm nga di feeñe ndax da ngay laxasaayu ne lii duma ko mas a bàyyi parce que saa maam ci la nekkoon ak sama baay wala da ngay nangu ne ah sama baay kat wax dëgg yàlla ku baax la ku góorgóorlu woon la yàlla na ko yàlla yërëm waaye ginnaaw yàlla wax yuwu ko woon kat mën naa juum te kii kat ginnaaw mooy yonent bi te moom la yàlla wax yi kon moom du juum kon su waxi baay wuute ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ teg waxi baay ci suuf te jël waxi yonent bi te ñaanal ko yàlla yërmaande du noonu la wala da ngay laxasaayu rekk taxaw ne déedéet maa wajadna alayhi aba ana nun daal suñuy maam lam nekkoon mënuñu koo bàyyi ak lu ngeen no fi mën a indi lu dul lool rekk lu bees lay doon loola ku ko def seytaane gañe la ndax da nga féeroo ak taatuhu fi ma amar lum digle lu ne des ko war a def lum tere lu nekk des ko war a bàyyi am na beneen tomb bu ko ñeenteel wa an laa yubad allah illa bi ma shara ñu bañ a jaamu yàlla ci loo xam ne du moo ko santaane ñeenti ponk yi boo ko matalee sa ngëmu yonent bi mat na nu delluwaat ca bu jëkk ba lum ñu andil ñu gëm ko ñaareel ba lum ñu digal ñu def ba fa suñ kàttan yam ñetteel ba lum ñu tere ñu bàyyi lépp ñeenteel ba dun jaamoo yàlla lu jógewut ci moom dunu jaamoo yàlla lu jógewut ci moom ndax kat jaamoo yàlla lu jógewut ci yonent bi mooy indi féetal mooy tàqale it xeet wi mooy tàqale xeetu lislaam su fekkoon ne tey royukaayu jullit yépp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne jullit yépp seen fiq àgg na ci loo leen wax ci diine ñu ne la fan la ko yonent bi jàngalee nga indi fa mu ko jàngalee fu wér ñi jëfe ko su loolu amoon tey jullit yépp benn kuréel la ñuy doon suñu amee ay tur it benn la ñuy doon ndax ansaar yi ak muhaajiroon yi amoon nañu ay tur waaye teewul ñoom ñëpp ci leen lañ nekkoon su fekkoon ne noonu la demee nag ku nekk mën naa yor suñ tiw ñu ne lii mooy mbooloo sangam lii mooy mbooloo sangam waaye boo dikkee da ngay fekk ni kii ak kii ak kii ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu nekk ndax kenn la ñuy roy benn royukaay la ñu am mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag li xewul lu ci bari nit ñi dañuy nax seen bopp nag won la ne ñëpp yonente bi la ñuy roy sallallahu alayhi wa sallam waaye ñii jëm penku ñii jëm sow ñii jëm kaw ñii jëm suuf ñëpp ñu ne yonente bi la ñuy roy loolu mënta nekk suñ ko doon roy ñoom ñëpp ñooy bokk lenn luñ nekk kon ñu ñàkk a jaamu yàlla ci lum yoonalut kooku ponk bu am solo bu mat a bàyyi xel la ak jaamu yàlla day jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nag nit ñi dañuy jaawale bu ñu waxee ne biddaa mooy dolli ci diine ji lu ci bokkul ñi déggul fa ñuy waxe dañuy ñëw ne la ah yéen kat yéen a ngi toog yor seen lampe yu leer yi ak seen microphone yi ak seen caméra yi te yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoru ko woon loolu nit ki bu dee wax te xamoo fa muy waxe mën ngay wax waxi gone ci kanamam te doo ko yëg bu ñuy wax ne biddaa ci diine mooy loo xam ne ci jaamu yàlla gi la bokk ak jaamu yàlla diisu ca toll dolli lu toll le tarfatul ayn bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne dikr sàngam nàngami yoon lañ koy wax boo ca dollee benn yaa ngay yokk ci diine ji bu ne dikr sàngam waxtu sàngam képp lañ koy wax nga bëgg ko wax ci weneen waxtu wudul woowu yaa nga ci dolli lu ca bokkul bu ne lii barab sàngam dong lañ ko sañe boo ko bëggee def ci beneen barab yaa ngi dolli ci diine ji kon ñu xam ne diine ji ci boppam lañ wax waaye li ñu tuddee alwasail nag muy moyens yi ñuy jëfandikoo loolu koy loo ca mën a dolli say ba dolli ci lépp lu koy baaxal bu dee ci moyens yi la loola baax na jàkka yi nit ñi tabax tey nuroo wu ñëw jàkka ja yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaxoon te kenn jógul taxaw ne leen bi daala parce que xam nañ ne loolu ci moyens yi la bokk du mooy jaamu yàlla gi ci boppam nit ka da daan nodd nekk ci biir jàkka ja di geesu ndeyjoor ak càmmoñ ndax ñëpp mën koo dégg ba mu yàgg ñuy yéeg ca kaw sooroor ba di nodd ngir mu mën a àgg fi mu war a àgg fépp ba mu yàgg ñu amal ay haut-parleur yoo xam ne buñ ca noddee ñëpp waa quartier bi yëpp dégg ko loolu mooy moyen yi jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir jaamu yàlla loolu dafa dugg ci bunt bu am solo ci usul ñu koy tudde al masalihul mursala almasaalih almursala xam naa du ñàkk ñu del si ci beneen yoon boo xam ne danañ wax nan lañ koy tënke bañ mën a xam lan mooy almasaalih almursala kon ngir ñu gàttal foofu ñu xam ne gëm yonent yi li nu ci gën a itteel mooy yonent bu yàlla tudd bu nekk noonu gëm nañ ko ci aw turam waaye gëm nañ ne yàlla am na yonent yu mu yónni yoo xam ne tuddul seeni tur waaye biir yonent yooyu la ñuy bari bari am na yonent bu ñëw boo xam ne mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mujj nga xam ne beneen yonent du ñëwati gannaawam kooku diineem làmboo na lépp loo xam ne dafa nekkoon ci diine yi jiitu woon te yàlla nasaxalu ko nu war koo gëm gëmin woon koy gëm tegu ci ñeenti ponk yooyu ma tudd gëm ay xabaaram jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem bañ a jaamu yàlla ci lum indi wut doon jaamu yàlla ci lum indi wut ñeenti ponk yooyu bu saxee ci bopp yi loolu bind bu rëy rëy la boo xam ne doomu aadama ji day daal di tàmbalee fer ijji nag ci wàllu diine ndax mu dafay faral di wax ne fer ijji ci diine bokkut ak ki nga xam ne daa boo ko joxee téere mu mën a liir am na ñoo xam ne mokkal nañ téere yi waaye fereguñ ijji nag ci diine mën ngaa mokkal téere yi te fekk feregoo ijji nag ci diine kenn toog fële képp di déglu ni mbokk yi doon def fer ijji ci diine te yow mi mokkal téere yi boo tuut feroo ijji ki fer ijji ci diine mooy ki am ci tawxiid loo xam ne dana ko musal ci bokkaale am ci sunna loo xam ne dana ko musal ci biddaa am ci topp yàlla loo xam ne dana ko musal ci mooy yàlla am ci ay jikko loo xam ne yàlla dana ko gërëm ñeent yi ku ko boole fer nga iji ci diine loolu nag jarul njàng mu xóot moo xam ne dañ naan fanweeri at am na ko di gëstu ci téere yi ngir àgg ci loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab saxaabi da daan fàqe fële rek ñëw ñaar fukki fan am ko ci madina taqoog moom ku mel ni Malik ibn al-Huwayris kero bu muy tàggoog moom daf ne ko bu ngeen delloo lii ngeen fi jàng na ngeen ko jàngal seen waa seen waa dëkk te bu ngeen demee ngeen julli nii ngeen gis may jullee noonu bu ngeen demee jullee leen noonu ndax gis na ko muy gëstu julli yonent bi di xool ni muy jullee yépp mu xam ne lii ci li ko fi indi ci la bokk kon ku tuub am ñaar fukki fan ñene la demal jàngale ji loola seen pas-pas ak seenu gaaw a dégg ak seenu xarañte ak xarañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngale kon dalay dalay gàttalal diine ji nga gàddu ko dem daal di koy xam te xam na ne ñi muy waxal nit ñu ñëw lañ ñu xarañ lañ ñoo xam ne soo leen tënkalee danañ xam tënk yooyu fan la frontière yi yem ba duñ ko weesu ñooña diir bu gàtt dañ ca daan yóbbu loo xam ne lu leen musal la waaye teewul nag am ay saxaaba yoo xam ne ñooy kàngam yi doon tuxal nag mboolem xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu mën a jàll ñeenteel kon boobu mooy ñaata ponk ñeent billaahi wa malaaikati wa kutubihi wa rasulihi gëm alaaxira mooy juróomeel bi اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل